alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin wattaabi'iin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñi nuyu mbokk yi yépp nuyu di nuyoob lislaam waaye di leen jox seen wàccuwaay wi ngeen am di ñaan suñu borom subhaanahu tabaaraka la taala mu wàcc yërmandeem ak jéggalam ci suñu biir di siyaare mbokk yi nga xam te ni baaxoo nañu teewlu jotaay bi yëpp mu jotaayu yóbbulum ndaw ñu di jotaayu xam-xam waaye di jotaayu fàttalikonte ci suñu diine ñu tolloon doon jàngale téere bii ñuy wax al nafis suñu bàyyee xel nag suñu jataay bi mujj ñi ngi doon jàngale jigéen ji nga xam ni dafay gis dereetu reegal mooy mbërëg ak la aju ci moom yépp kon suñu bindub tey dañuy tàmbalee ci bunt bi nga xam te ni sëriñ bi daf ci jàngale dereetu wasin mooy jigéen gi nga xam te dafa am doom ba pare deret ji nga xam te ni day topp ci ginnaawam ak laaju ca loolee moo tax mu ne faslun li ab teqali la fin nifaasi ci wasin wama ak la nga xam te ni yataxallaxu dana aju bihi ca moom mu ne kon lii dafay teqale te dereetu wasin ak la aju ca dereetu wasin ñaata fan day am ak bu daggee nañ koy sosee ak bu toogee fan ya nga xam te ni bu ko toogee ñëwut nan la wasin aji wasin ji war a def mais an nifaasu wasin wa xat ba goog fee ñàkkal xaydi ni ki man ci tere ga ak saruhu gën jaag bëriyam xoddi da ligéf ko sittiina juróom benn fukk yowman ci ay bis tuumaru def na dugal def na digal bil xusli ci sangu ma salaatin ànd julli in baana nem feeñ in xitaaxun dogga xablaha ak njëkkam kama zukin ni ka ñu ko miinee summa isa waa summa isa aawadaha ndem delsi na ak dammu deret ja wa kaana tam nekk baynahuma seen diggante ñoom ñaar mooy diggante ba nga xam te ne dafay dagg diggante ba mu delsiwaatee seen diggante mu ne yajibu fukk ak juróom ci ay aw ak sag wala lu gën a bari baana feeñ na bu dee am na lu gën a bari fukk ak juróom ci ay fan wala mu am fukk ak fan ak juróom moom moom lay wax mu ne fa saani ñaareel ba min huma ñoom ñaar yakun dana nekk xaay dan di mbërëg mu tani fan muy aji sosu xindal faq yi fa aji dégg fiq ay dan batay fa in yakun neem nekk na bay baynahuma seen diggante ñoom ñaar duuna yajibi ci lu dut fukk ak juróom ci lu gën yees fukk juróom yow man ci ay bis fa dammu dee jalil awali ñeel lañ aji njëkk ya kon fa dammu day tàppe di awali ñeel aji njëkk ya yajub dana war summa isa nasarta ndeem seen tantan na fal xiyaas bu xiyaasoo jat taxu dana fekk mu tam mi man nifaas muy aji matal nifaas kon dafa wax ne ki nga xam te nii dafa gis dafa nekk ab wasin nga xam ne am na doom ba pare déet wasin joojee bu koy gis kon dañ koy tere comme lañ tere woon ka gisoon deretu mbërën mooy reegal ñoo bokk ñoom ñaar lañ leen di tere mooy julleeg woor ak wër kaaba ga jàng alxuraan ak la ci aju kon nam ko teree woon aji gis dereetu reegal ja noonu la ko teree ki nga xam te ni dafa gis dereetu wasin te setagul dereetu wasin nag jigéen ji mën na koo gis benn yoon mu set wicc nga xam ne daa ñëw ñëw rek set mën na ko gis tamit lu mat ci lu bari bari fukk juróom benn fukki fan mooy ñaari weer heure bu ko gisee ñaari weer mu continuer di gisaat deret ja na xam ne deret jooju kon nekkatul deretu wasin waaye deretu feebar la te heure bu deret ja daggee mu dem sangu te dem julli ji bu dee koor mu ko woor bu dee jàng alxuraan mu a jàng alxuraan ak la kon li bari ca deretu wasin daal mooy ñaari weer bu ko weesoo na dem sàngu ji te xam ne loolu nekkatu deretu wasin wa bu ne fekkee nag deretu wasin bi dafay ñëw yenn saa yi mu dagg ñëwaat kon bu boobaa lay konte fan ya muy ñëw bu daggee mu mu konte fan ya bu dee matul fukki fan ak juróom kon na xam ne ba tey deretu wasin ji moo setagut kon bu fekkee dafa dagg toog ñetti fan dagg toogaa juróomi fan ñëwaat kon day xam na dee dereetu wasin ji ba tey moo jeexagut mu konte fan yam ko gisee woon ca bu njëkk ba konte waat fan yi ñu ko gisee continuer ba keroog muy mat lim boobu mu ñaari weer waaye heure bu fekkee dafa dagg diggante ba daggee ak diggante ba mu sosuwaatee maanaam diggante bi nga xamee ne deret ji arrêté na mu dem sangu ji ba tàmbalee julleeg yu mel noonu ak diggante ba mu ñëwaatee mu konte mu mat fukki fan ak juróom wala mu ëpp ko kon boobaa nekkatu deretu wasin heure bu fan ak juróom wala mu ëpp ko ci diggante bi mu daggee ak bi fasuwaatee kon mu boobaa day xam ne kon lii nekkatu deretu wasin waaye deretu mbërëng la bu sosu maanaam dafa gis reegal mu jàpp nag nam daan gisee reegal bu dee ko baaxoo gis kon nam la ko waxee wala bu dee ko xam te ni mosu koo gis mu xool na muy gisee deret reegalam mu jàppale daal deret ji mu gisaat kon deret reegal waaye nekkatul deret wasin ndax mat na fukki fan ak juróom kon moo xam ne kon deret ji sosu deretu reegal la kon loolu lay xoolee bu fekkee deretu wasin ji dafa mat wala matu wala matugut kon noonu la koy bàyyee xel kon daal loolu mooy bi nga xam te ni moo doon jàngale deretu wasin bu ko jigéen ji gisee niñ koy nattalee ba nga xamte te ni du ko yàqal dara ci ak jaamu yàlla dana ko def nambare kon moo nekk noonu su moom la suñu doon jàngale comme deretu wasin kon mën naa xëyee jeex maanaam nit ki mën naa am doom rek doom ji génnaale deret yëpp mu set teewul day dem sangu yi kon tàmbalee julleek yëpp lu ko war waaye mën naa ñëw ba yàgg lu tol ni ñaari weer mooy juróom juróom benn fukki fan bu amee ñaari weer yi mat sëkk nag weer jeex na na sangu ji te dem jàpp ji boolee jàpp julli boolee julli boolee woor mu woor boolee jàng alxuraan kazaalika ni ko noonu bu dee nag day dagg ak a ñëw day xool bu daggee mu dem sangu ji jàpp ne moom set na bu ñëwaatee mu xool fan yam amoon ci bu njëkk ba taf ko ci fan yim gisaat bu dee diggante ba mu daggee ak bu mu ñëwaatee matut fukki fan ak juróom nga xam ne day mat ay juróomi fan rek ñëwaat wala mu mat juróom benn fan ñëwaat kon bu baax da koy compter waaye bu matee fukki fan ak juróom diggante ba mu daggee ak ba mu sosoo wala mu ëpp ko kon boobaa deretu wasin ba jeex na kon day jàpp ne deret di mu gisaat deretu reegal la mu compter deretu reegalam bu setee moo xam ne set na dem def lépp loo xam ne tere war nañ ko kon loolu mooy diggante deretu wasin ak diggante deretu reegal mooy mbërëg loolu mooy si na teqale ñoom ñaar kon dañuy yemale fii kàddu yi suñu jotaayu tey di jox dig daje ñëpp jotaay bii di ñëw muy jàngale julli ak ay waxtoom waxtu wu nekk fam tàmbali ak fam yam yal nañ suñu borom defal ñu fekk ko jàmm defal ñu dégg ak topp defal ñu njariñ tey ak ëllëg defal ñuy gën ñun te kaw li ñu bëgg in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi